jërëjëf rek euh, dellu si waat rek gannaaw bi nga xamante ne am nañu amoon nañ interview rek ak ki nga ne moo nekk kii di Doudou Dia di député spokesperson euh, bu lii di APRC waxtaan bi nga waxtaan nañ ak moom euh, jëmee ko ci seen press conference bi nga xamante ne amoon nañ ko ci weekend bi lu ñu dal def dara lu dal di dalal ñi nga xamante ne ñu ngi bàyyi ko rek ci network of girls against human trafficking nañ dal di waxtaan ak ñoom am nañ fi ki nga xamante ne moo nekk kii di Mrs Ami Diop ak kii di Fatou Badji dinañ dal di waxtaan waxtaan ak ñoom lu demee ci seen wàllum li nga xamante ne moo nekk lii di network bii nii ma daal di bàyyi rek euh, ñu daal di nuyu madame Diop. ok asalaamaaleykum ah, maa ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant di leen jaajëfal di leen dalal si programme bi thank you Sarah for hosting us. ok euh, thank you very much um, lu ñu def dara lu dal dugg ci biir lii di waxtaan bi um, xool uh, lan mooy jubluwaay lii di network of girls against human trafficking. ok um, network of girls against human trafficking dafa nekk organisation boo xam ne victim of trafficking ñoo ko form ñi nga xam ne dañ demoon si dëkki naar yi pour daan seen doole naka su dul noonu dañ leen jaay ñi nga xamoon ne dañ leen jaay. so um, it was um, found by a victim called Fatou Ndiaye moom moo initiate um, this organisation so bu mu ñëwee tamit um, di boole nit yi yëpp di wóor di seet am um, victimes si comme ñi nga xam ne dañ jógee si dëkki naar yi am lu leen naxare pour ñu ñëw ñu indawi réew mi um, the younger ones ñi nga xam ne ñoo fi neeka pour ñu wax leen pour ñu chia li nga xam ne ñun moom lañ fees moom lañ dunda pour ñu def a stop to it because every day ñu ngee laan ndaw yaa ngee dem te mënuñu si dara so pour ñu stop leen mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fa demoon ñu form this group ñëw because um, dangaa gis ne all the members yi nga xam ne ñun si groupe bi victime lañ direct victims lañ so this is the only thing li nga xam ne we can put a stop to it so moo tax ñu form this organisation called Network of Girls Against Violence. ok euh, boo leen ko doon taxawal euh, yan jafe-jafe ngeen am pour daal di taxawal lii nii. Um, woon na torop. because ñun xam nga Gambia fii ni or Africa dañ believe in culture of silence duñ dee nangoo génn pour wax am lu ñu dal pour share the stories yi nga xam ne ñun moom lañ nekk di dunda or loolu lañ face so dangaa gis ne am métti woon na pour dajale janxa yi métti woon na am pour gaal si ñu génn si dooree ko tamit si man si suma boppa because it was very difficult pour ma génn pour ma share the am the idea but ma xam ne tamit am the more I keep silence it's So I have to join this organization, share my story, and help stop the people from going as so waaw xam nga soo woowee human trafficking euh, nit ñi dañoo wax ne ah dañoo wax rek human trafficking Gambia fii nii amul fii nii. waaw am na ba léegi da ngaa gis ne like pour ñu pour nit ñu gëm ne this is li nga xam ne it's real dafa difficult because they believe ne like soo duggee plane nga dem it's nothing but it's the worst thing so suñu waxee human trafficking dañoo ne like ah, ñoom dañ ne dañ dugg plane. so danga gis ne people concentrate more on the back way than human trafficking okay. while nga xam ne human trafficking it's the naka la main problem in the Gambia right now because the youths are going every day every day jànxay ñu ngee dem dangaa toog nit kool la maa ngee dundali maa ngee dundali doo xam naka ngaa def so ñu gis ne seen yaay yaa ngi frustrate parents yi ñu xamuñ seen doom yi lan lañ nekk di dunda foofu noonu so ñun mi nga xam ne dem nañ xam nañ ñu gis nañ métit bi gis nañ ñu def so we decided to come out and put a stop to this. Okay. Léegi ndax yéen a ngi am euh, any support you know from the Gambia government ak yeneen stakeholders? very hard and very difficult because ñu ngi dem up and down every day trying to raise our voices but dangaa gis ne still they are not answering to us but from the stakeholders some are trying to support like biñ demee KMC have tried to help the National Youth Council, Action Aid the Gambia, and Network Against Gender-Based Violence. So, but the main thing from the government, it's really hard to get support from right. Did you engage, engage in um, foreign foreign foreign affairs yeah, because um, just starté liñ jëkkoon a def moo binda côté call hmm. um, um, in the offices def nañ bind nañ call to the Ministry of Foreign Affairs, National Youth um, Ministry of Youth and Sport to lots of ministry but dangaa gis ni am the the the was poor ku ñu ñi um the only courtesy call that we have was the Ministry of Youth and Sport so they happen to promise a lot of things but still yet we didn't hear from them so dangaa gis ni it's it's it's very difficult. it means ne it means ne uh, Gambia government uh, nekkuñ taxaw le they are not because we try all means that we can we try to reach them to them we have um, write several times to them but there is no response that we need uh, what about trying and pour pour um, a amee audience ak moom yeah because um, the president office to the vice president office too as well but still we didn't hear from them Okay. Yeah. Uh, uh, uh, Fatou, um, how do you see the organization? Now, who is it? Network of Guards Against Human Trafficking. Well, uh, thank you, sir, for that question. Network of Guards Against Human Trafficking is like it contains of so many youths that are direct victims of it, mm. including me myself. So, dafa nekk li nga xam ne comme dafa bokk to our day-to-day life activities that we are still coping. It's not easy. It has never been easy for us. But yet still, I believe that uh, the implementation, is very slow. So I believe that the government are meant to protect us and are meant to serve us. But we cannot sit down waiting for the government. I believe we will keep still keep working and then dañoo liggéey ba fu government bi fekkee if they meet us halfway fine. Okay. and doing what we are. continue ok euh, léegi nañ ñëw si seen euh, life experience ok euh, Fatou gis naa am na maa ngi doon reading chronicles gis naa story si foofu noonu am na foo wax ne sax nga ne ki nga xamante ne moo la utal documents yi bu la utal liggéey foofu noonu sa xarit la sa waay la. xam nga that is the funniest part. yeah danga gis ne comme um, these people are not foreigners danga gis ñu ñu traffic they are the same people we go to the market with their wives our friends their children go to the same school with us waaye danga gis ne man kuma yóbbu it was a very close friend of mine comme dañ jógee university like we were very close we do so many things together waaye moom góor la so comme dama ko old woon old bi nga xam ne comme I never thought ne comme dama dugal ci anything that has to do with damaging so moom dafa ñëw approach ma with this proposal and I thought it was genuine because document bu mu indi pour ma sign and the content word is I thought it was genuine because dafa include ne comme dama liggéey uh, si restaurant so ma teg ne kon being at the university and it has taken me so many years and nothing to show for it and being the only child of my mom I thought that it was gonna be a new start for me to help my mom in other areas. Mm -hmm. So I when he approached me I had no doubts because like am nañ that relationship I have known him for so many years so bu mu ñëwee so I thought it was genuine and I accepted willingly ma demoon suma yaay first she kicks against it waaye I try to convince her just to let me go waaye dem naa accept naa but immediately when I get to the airport and all my documents was it was Lebanon Lebanon yeah bu ñu eggee bi all my documents were confiscated ba pare dañu bi nga xam ne it was near five meters long So we have different nationalities nga xam ne comme we are more than hundred in that single room nga xam ne amul palanteer sax so nekk nañ fa ideas yi nga xam ne we were waiting for our buyer because like dañ fa toog bu yàgga so I didn't feel comfortable I had to ask they told me that comme dañoo xaar ñu ñoo jëna so it was funny to me that because like maa ngi soog a digga ne comme like uh, slavery is still existing pour man comme like it was a done story so ba jigéen bi bu ñëwee pour jënd ma comme dañ laa fekka fi nga toog sax dañ laa làmbatu comme ay masandiir su ñoo jaay dañ laa làmbatu bu seen na dëgër nga na dëgër loo at that moment how do you feel at that moment well at that I felt very bad because like I felt disappointed because like lu ma doon expect ak lu ma ñëw pour gis we are two different things waaye at that present moment I was helpless and hopeless because I had nothing to do unless to follow waaye tam nga gis ne da fa jógee nga delluwaat ticket bu léegi ñu la jëlee it was another different story because man dama di ewu oh, six o'clock dama di comme twenty dafa mel four hours clockwise laa day liggéey so it was uh, ba dama doon liggéey I was not placed on a salary I was working for almost five years without no salary and nothing so su ma eh, laajtee suma boss dafa dee wax ne laajteel sa agent bi su ma laajtee suma yéen dafa dee wax ne jox naa ko sa yaay and comme communication bi dafa nekkoon limited because dam li mën a wax ak sama yaay tey dama dee wax ak moom in another five months. waaye yow musuloo wax yow eh, chances bu yow dee am pour waxtaan ak sa yaay doo mënuloo ko wax eh, li nga loolu ngay face foofu noonu. non à ko a wax because like doom sa yaay ak yaay nu mel ak doomam dafa métti woon so mënuma nekk si situation like I was facing problems and then ma war koo inflict sama yaay bi nga ne she is back home and thinking about me so I thought that I was matured enough to bear it on my own ma ñëwee ma soog a ko so ba léegi sax mënuma ko woon a contain because like liggéey naa jigéen bi almost a year maa ngi doon toppatoo paa nga xam ne comme he is old enough to be my dad waaye comme cancer la doon support maa koo sanga maa koo laab maa koo boot suma gannaaw bi sax whatever waaye paa bi ne dañoo tëdda eh, jabaram ñëw jabaram su ko laajee lu xew mu ne dama ko dóor so dangaa gis ne su waxee loolu jabaram immediately paa bi su eewoo two o'clock two o'clock boobu noonu two am boobu la suma liggéey bi di du ma nelawati ba 6 am so dafa mel ne comme dañ ma doon punish ne comme lu ma doon def paa bi so ah, dafa nekkoon lu fone si man dama lay toog ma xool comme lu ma miinut la waa dama xam ne comme man miinu ko woon so obviously aw ma woon benn option loolu I have to abide by the rules just to survive if I really wanted to survive hmm. then dem ba benn bés lu indi woon suñu problème sax nañ dem benn bés mu ne ma dama war a siga she has to use me as a table table table pour teg lekka so dafa nekkoon jigéen bi so mu ne ma ne dama nga tàngal maalo si microwave bi ba pare nga ñëw teg ko fi so ma tàngal ko teg ko fi mu ne ma ne ségal ma ne ko ma ségal a nga ségal because lii plate force bi muy tànga ma dem shake di plate bi mu daanu mu ne ma ne bu ko defat so mu demati tiba maalo ñëwaat di same thing mu daanu so that play daf ko jël mu dóor ko suma gannaaw bi dem suma digg gannaaw bi xar I have still had the mark so loolu moo indi woon euh, suñ problème bi after next day tam mu ooyati ma xam nga lan laa doon na lu ma yónni pour ma def defuma ko so mu jam ma paaka which I still have the scars on my head from that jam paaka boobu ma fiyee ko so from that fiyee ko I was jailed for one year six months one year six months one six months in Lebanon within that one year six months I was beaten every day and night by prison officers by the prison a yeah I was beaten day and night I was struggling to survive on that prison because dama xam ne the only thing that kept me going I had a mother so loolu rek moo nekkoon the only thing that kept me going and I had the inspiration that no matter what ha happened I must survive and live there so noonu laa nekkoon the struggle till I met a girl called Satang uh, may her soul rest in peace she died in Lebanon so we met I met Satang at the prison so foofu lañ struggle till we had a breakdown every day dañ dañ am marto buñ ñu amoon so every day dañ ko daan dóor fu ñu doon tëdda pour mu ñu mën a am space pour rëcca rek pour rëcca so everyday dañ ko daan dóor ñuy pousse suñu lal yi di dóor di pousse suñu lal yi dañu amoon space bi nga xam ne mën nañoo génn not noo yi ne comme suñ génn noonu we are still going direct to the sea si géej si géej so buñ xawee benn jax bi we are wandering on the sea for almost two weeks foo ñu doon find suñu destination back to bedroom ba benn góor ku ñëwoon like a fisherman moo ñu help so we almost died in Lebanon waaye dangaa gis na na bi ñu génnee satantam it was another struggle because dangaa gis we are feeding from hand to mouth because amoon na ambassador bu nekkoon uh, fii naka la wax sa Libanon kooku suñu demee pour lu ñu doon wax mooy maa maa ngi amoon ma compte ñu uh, la kooku suñ ko koolee lu mu ñu dee wax mooy da ngeen maa xaar bis ma ñëwee Libanon I must sleep with you people and then help you so dafa nekkoon Gambian soo daf ñu daan wax ne comme foog ma ñëw tëddaay yéen yaay rent hotel and then mu ñëw tëddaay yow te loolu sax is not a possibility ne is not a must ne daf laa dimbale so dafa nekkoon li xam ne ñu ko doon tëyis nga xam ne comme far yàlla def satan dee satan accident mu dee from that uh, accident ñu dem pour jël bodee bi waaye dangaa imagine comme yaramam bi dafa tasaaroo woon so we had nobody to help her I had to bury her myself so dem nañ si autorité even pour ñu jox ñu fu ñoo suulee satan was a problem benn si fee na benn flower garden lañ gas rek pax rek dugal because so it was something very hard for us because like at that present moment amuloo kenn pour mu dimbali la from there I went back to my boss because like dama xam ne satang ti dee na I had nobody to help me so I just had to go back risk myself of going back to my boss ma delluwaat foofu so delluwaat foofu moo nekkoon another thing because dama fa dellu within one week they got me operated, and my left kidney was taken away from me to save the dying husband. Kidney. My left kidney was taken away from me to save his dying husband. So then I guess from that operation, the must struggle to come back, and I paid all the dues that I have to pay within those five years. Mostly in Lebanon, I paid taxes almost to ninety thousand dollars. I have to return that money just to get myself back to the Gambia again. waaye dangaa gis ne ñëw Gambia dafa mel ni comme is another different story because dangaa ñëw Gambia dangaa seet di mu painful part is like dangaa ñëw after all nga foog ne comme if you are coming to Gambia you will feel secure waaye dangaa mel ne they are the same people pushing you to what you were léegi yow boo dellu see uh, ki nga xamante ne moo moo dugalante lii nii how do you face the person well uh, the most funniest part I face Dawda like any other person I'm facing in the society. Come, them I believe ne come lower on a hell and I believe it was an experience I needed to go through in order. Mom, hamon and li li mo happen. Yeah, hamon yeah. na because I've done hamon every day. Tip mo niwit, I'm explaining na ko Tip hamon na everything I order go. Lum ma dodo war mo ibala ma harek. And I think ne come nega do me unit and I come. I just have to let go. Okay. All right. Um, thank you very much uh, for that experience. Um, down a si Ami. your experience um, is it in Egypt? Yeah. <laughs> it's another horrible experience. But anyway, I left um, to Egypt in 2014 um, when I was sold by an immigration officer. Immigration officer, Gambian immigration immigration officer. Momo Lajai. Momo Lajai. Because time boobu maa ngi liggéey Banjul and daf ma gis ma approach ma as a sister. so there was a day mu invite ma um, for lunch we went ñu toog di waxtaan so mu ne ma ne ok there is this thing that come up um, gis naa benn yoon tukki to Egypt suma broda moo fa nekk so suma broda boobu noonu dafa soxla ku ko liggéeyal te yow jàng nga am nga sa documents yi so just pack your documents nga jox ma ko man ma yónnee ko den balaa ngaa prepare sa boppa ba dem soo demee da ngaa fekk sa liggéey bi mu ngi tegu and every month they will pay you ne ko oh so ma am um, two thoughts about that ma xelaat xelaat xelaat xelaat until one day mi ne ma ok so ma trusted I have some sisters ñu nekk fii Old Joshua so we can go to them so bu ma demee pour meet those sisters and those sisters were foreigners they were Sierra-Leoneans yeah from Freetown so those people were the people also ñoom ñu moom ñu nekk di utal nit so the main agent kooku mu ngi Dakar so you see Gambia is a source we have all means of traffic. te te yow doo musa foog ne immigration officer. yeah dina def lii. exactly because trafficking Sarah it's always a person that you know. kenn du jógee si biti mu ñoo jël la jaay la it's impossible because most of the members ñëpp ñu leen trafficking dafaa nekk seen yaay bu ndaw seen sister seen brother or seen uncle seen family members la moo nekk so you will not expect ne. kii daf ma jël fii pour dem jaay ma pour toroxal ma si beneen dëkk so the óolute bi nga am the um, um, belief that you will have in them you must take the risk of going so nii la demee so when I happen to meet these people they also convinced me so ñu jógee fii it was on a Friday night to Dakar bu ñu demee Dakar to meet the main agent he's a Nigerian moom Nigerian la so we were there until the Saturday morning mu defar suma paper si but buñ doon dem si embassy bi it was just like from here to Serekunda market so buñ demee ba si junction bi mu ne ma ok fële moo nekk embassy bi yow just go submit your documents tell them that you're a business woman you're going for a business trip I said oh really he said yes but why you not coming with me he said just go I can't come there so bu ma demee ma submit documents yi then ma toon di dem balaa ñoo egga si garage fu ñoo jëlee moto the embassy so bu ñu demee am um, I think balaa ma jël suma flight bi dañ mën a taal si airport bi so bu ma eggee Egypte I met these two men at the door dama génn rek nga dajee gaay si moto bi rek ñu kuf suma wóli si dugal si moto bi ñu dugal ma si moto bi noonu lañ demee a long journey bi nga xam ne man mënuma I can believe bu ma demee I was wondering is this Egypt because fu ñu dem I think our our country is far. that, that place. so I was really surprised so bu ma demee ñu tëj ma si néeg for two weeks I was in that room ñu siis yes ñu siis suma téléphone yi suma passport si so bu mu ñëwee pour jël suma passport ma ko what are you going to ma ne I have xaw ma do seven days previous with the passport some stuff like that not knowing suma passport because a lot ma tëjee so with that two weeks maa ngi si that room waxuma suma yaay awma téléphone to communicate I don't know where I am I was in hell so lu ma dee def moo nekk every day I will be crying in that room when they even come and say won't you come and in the parlor as time goes on dinga ko miin dinga ko miin soo gisut kenn ko waxal di nga génn nga ñëw toog fii dinga ko miin so I was like what is going on but there was this day um suma yaay because bu ma nekkee Dakar um, I happened to get some of my family members to know where I was in Dakar. Okay. So they suma yaay bu mu toogee for two weeks day wut ma mu yónnee foofu noonu mu yónnee suma mag bu góor bi mu ne ko ah demal si Felix the agent name was Felix wax ko ne suma doom mu demee ba tey it's two weeks te dégguma ko su ma toogee tey ah ëllëg dégguma ko he will be in a very big so he got scared mu call directly to Egypt because agency ñoom ne nañ dee xamante so ah noo leen mun ci def trial leen ngeen utal ami téléphone because of yaayam dafa yónnee fii ne su ko déegut damaa am problème te dat problème mooy ñun ñëpp am nañ problème so they happen to get me a small phone foofu lañ dugal suma sim card bi dugal ma ten Vodafone card so bu ma nee hello yaa then my mom run into tears I was so noonu lañ nekkee yaa ngi si jaama waaw lu tax kóoluloo ma bi nga demee ba léegi I could not tell her because maa ngi just egsi ma ne ko dara maa ngi fine waaw ya yaa ma ne ko ni am fine ba dinaa la koolaat wi balaa maa dinaa la koolaat crédit bi mujje so ma toog bi another day ñu ne ma ne léegi pareel dangaa dem liggéey ma ne ko liggéey ñu ne waaw balaa den sa jigéen bi mu ngi jël fier mu ne ma kaay soo demee sa bos bi soo ko fóotalee am droit sami nii nga koo paasee nii nga koo lemee ma ne ko man paas mu ne ma waa ma ne ko déedéet loolu man indi wut ma fi mu ne ma ahankay you are here to work as a maid you are maid loolu moo tax ñu jëlee la sa di indi la fi ma ne ko man mu ne ma waa and I was shocked it was unbelievable so lu ma fiiloon that time man kese man maa ko xam I don't know what to do xamuloo kenn koy waxal so ma toog you can deny it loolu moom mënuloo koo bañ mu neex la mu naxari la dangaa dem ñu eega ñu dem si agent bi buñ demee si agent bi agent bi jël ma yóbbu ma si suma boss so buñ eegee si suma boss ma eega mu xool ma xoolaat ma so ma fekk foofu ñetti xale kenn ki mu ngi eight kenn ki mu ngi five kenn ki mu laas kooku ku ndaw la mu ngi jàngaraam so mu ne ma ne you have to take care of all these kids boole ko yaay bale yaay pompa xale yi buñ jooy soo fuñ nekk da war a taxaw nekk seen boor I was like what mu ne ma <laughs> yes so Sarah I don't know things were just like unbelievable to me I believe that I am coming to suffer and that's how it was so at the first day I didn't sleep till five I think five a.m. because xale yi time boobu lañ tëdda te always last kid bi man maa ko war di ko yore kooku si nelawut man du ma nelaw waaw su su jógee damaa jóg soo noonu lañ nekkee si kër bi noonu lañ nekkee si kër bi su ma feebaree soo leen waxee garab ñu ne nekkut man maa la war a jox garab sa feebar su ma yoon nekku si da ñëw fii pour liggéey liggéeyam su dangaa gis ne soo eewoo 5 am boobu soo lekkee jeex na ba soo waree dem tëra boobu suñu leen neexee lañ laa jox nga lekka suñu leen neexul doo lekk so it was horrible soo ñu nekkee noonu nekkee noonu till this day benn bés mu ñëw because su tàngee nii when they in summer ñoom lañ dee génn dem si hôtel yi pour am ngelaw so ma àndaa gaay ñu dem si another in um, that hotel Movenpick hotel one of the biggest hotel in Egypt so foofu lañ dal ñu nekk foofu so benn bis ñu ngi toog si reception bi all different nationalities ñu fa maa ngi toog foofu xale yi xale yi ñu ngi run about so trying to save those kids moom sax mu ngi soxla suma room card bi pour ma jox ko ko so she was ana sa room card bi ma ne ko mu ngi si sama baag bi seet ko si baag bi because xale yi ñu ngi nii mënumaa teg xale yi ma ñëw nekkete loolu daf ko naxari man I don't know soo nu ma nekkee si xale yi rek mu ñëw jaaral nii nga dem seetal ma room am room card bi so when I open the bag ma génnee room card bi ma teg room card bi nii si kaw table bi man ma joxe gannaaw mu dem nekkete jigéen bi loolu métti na ko so mu ne ma ne ñëwal that time I was even chewing gum throw the mu nekk di yuuxu di yiil so I happen to throw that gum from my mouth ñu ànd ñu dem so buñ àndee ñu dem ba si room bi rek mu sànni baagam bi rek di yuuxu lan moo tax nga jël carte bi nga sànni ma ko you are a maid to me lu ma la laajte you have to put it in my hand ma ne ko but madam I didn't throw the card I just placed the card on the table because I was trying to save the kids don't talk when I'm talking rek mu jël loxoom bi rek and then hit me then man ma jël xale bu ma téye woon ma sànni ko si I was like never laa soo bëggee ki nga dóor dóoral sa doom yi and she got angry so man I know that that place was no longer safe for me so that time man maa ngi waxaa moom I was trying to gather my things lu ma am foofu noonu because I know next minute bu ma fa am I'll be in problem so she was like I will create a problem for you dinaa la oyal police yi I will tell them that you stole my jewelry I will tell them you did this and they will prison you I tell her that So she was shouting, yelling. I happened to gather the things. And that was my three months with that woman because I've worked for two months and there was no payment. So we were there. So buñ demee ba there was no other thing to do. maa ngi jaaxle maa ngi paak sama bagage ma génn ma taxaw si bunta ma ne ok now pay me the three months that I worked for mu ne ma ne I will not pay you ne ko dem if you don't pay me I will not leave the place that I am bu jëkkëram ñëwee mu ne jëkkëram ne talk to Ami and ask Ami what happened jëkkëram mu ne ko I will not because wax naa la ne she is working you have to take it easy with her hence you not then let her go and the man was a very good man. Okay. Jikaram was a very good man. From yeah, the, from, from the, woman. So that, woman was insisting the Jikaram bumma fay. So Jikaram mugini halis manjohma. So working from that place, going to where we were going, I don't know the country, it was 12 a.m. at night xawma fu maa dem that was the first time ma génn taxaw si tali Egypt I've worked for three months musuma génn si biti I don't even know the road to the shop I don't know su guddi jotee man damaa taxaw si kaw taax bi di xool mbeeda bi nu mu mel that was how I was living so that day bu ma génne ma dem ba si reception ma ne ko ne where's the shop mu ne ma go straight comme dafa mel ni fii ma téye taalal bi di dem ba where I can say soo rombee Chechestand seen essence yi nga dem it was 90 kilometers I have to walk that night maa ngee dem maa ngee jooy maa ngee dem man kese ak yàlla maa ngee dem maa ngee jooy xamu fu maa dem ba ma gis bitig bi bu ma eggee sa bitig bi the shopkeeper moo tax ñu ne foo dem ku nekk there is a good person not everybody in the country is bad so bu ma demee to happen to meet this man Ahmed the shopkeeper's name is mu gis ma ma ne ma why are you crying what happened sit do you have any problem mu ne ko no where are you from mu ne ko Gambia mu ne ma Zambia mu ne ko no Gambia mu ne ma ok fine so bu ma toogee mu ne ma ne do you know the place that you are going ma ne ko no I don't know you have problem with your madam ma ne ko yes ma why do you Africans come here to work hmm. we Egyptians are not good we are kafirs this is a land of kafirs I was like what then I am dead so ñu nekk noonu di wax di wax di wax mu ne ma ok call the people that you are going to and tell them that you are coming ma a crédit ma wax ak Nigerian agents yooyu noonu ma ne leen ne dama am problème ak suma boss maa ngi ñëw ñu ne ma ne at this night where are you coming ma ne leen ne please I am coming so noonu la kii um, Ahmed utalee ma taxi ma dugg si taxi bi dem ñu dem so that taxi fa xam nga Egyptians how they are ah, mhm. anything could have happened to me I could have been kidnapped I could have been raped I could have been killed anything so I was there and he was like do you have a husband here I said yes do you have a kid here I said yes where are they I said that's where I'm heading to maa ngi dem si suma jëkkër ak suma doom mu ne ma hmm ma ne ko yes mu ne ma ok so he went and went ñu dem ba si kanam ba si kanam mu laajte waat ma are you sure you have a husband here? I said, yes, wallahi, I have a husband, I have a kid here. That's where I'm going. Let's go, you will see them. So maybe that could that because was the only thing that, that saved me. Thing that saved yeah, you, wow. because so, I told them that wow. I have a husband and have so, a kid. Yeah. Anything could have happened. So buñ eggee ba si guddi boobu noonu ñu drive ñu dem ba si góor bi ma fekk góor bi mu ngi taxaw si junction so bu ma eggee rek ma wàccaw si lu ma mooy where's the money I said you don't care for my safety you don't care of how I was xamuloo man si naka laa nekk loo am important or the interest moo nekk xaalis bi here is the money so mu jël xaalis bi yëpp so lu mu ma jox la moo nekk fifty dollars I was like what's this for mu ne ma this is your money I said what am I going to do with this fifty dollars I am a lady I need to buy things for myself I need to buy cat I need to buy pad I need to buy spray I need yoon nekku si who cares buñ demee that night the following night mu ne ma tomorrow you are going back to work buñ eegee fu ma war a yóbbu that was the worst place again kër boobu ñu fa nekk ñëpp dof lañ and <laughs> no don't laugh honestly <laughs> this is serious Sara so bu ma eegee ñu ne ma ne xale magi booy bi am xale bu góor bi dafa dof xale bu jigéen bi dafa dof I have to take care of that mad people ma call leen ma ne where you people bring me fi ngeen ma indi is worse than where I am from I cannot work man su ma fi yàggee I myself may ñu ne ma ne it's your work don't complain you complain too much whenever you leave this house again and come to this place we will lock you forever you will never go out again I said fine let me get that punishment but you people should not get me make me go through this so bu ma eggee guddi suba si mu jot xale bu jigéen bi we wash our clothes um, in the washing machine ma fóotal leen ma weeral leen si buum bi mu egg si kaw jël si sa bi dog buum bi so everything fell to make it short xale bu góor bi jël banta di wóor di dóor nit ki si biir kër bi di ma dóor ah banta bi and I was like I can continue with this so xale bu jigéen bi dafaa dem indi doom mu indi and was like anything I do you have to do it when I say rakaba you have to do it I called the agent the Egyptian agent I told the madam that I cannot continue with this because this is horrible when I leave here I will I myself will run mad and maybe that just make an excuse any excuse that you can make and exit yourself from that house and that was how I managed to escape from that house so it was it was then uh, nga dellu si waat then from there they happened to take me to oh, another place so that was my third madam in Egypt and that was a four story building every day su ma xëyee damaa xëy si kaw last one bi ba si suuf the ballet up the going up and down when i was tired so there was these people this we happened to meet the senegalese people so the Senegalese people were the people that Ninga Hamino you say from these people. Okay. So they were there going to school, studying Arabic in that people. So Nyomnyo happened to them to meet this Nigerian, happened to create problems from them for them. Um you see from them, then Nyom you and find a place that we so from there we have buñ ñu jëlee foofu ñu yóbbu ñu so that we can um, ñu utal ñu foo xam ne that those Nigerian agents will know that we were there so there was this Gambian sister who was there to as well Khadija so moom tamit xam nga xoli Gambian bi rek mhm. she was suffering we told her oh ñu ngi fii we are trying to go back to our country why not nga ñëw nga join you try to escape anytime soo paree pour dellu nga dellu sa dëkk because ñun moom we have nothing to do here we are going not knowing Nigerian people yi ñoo ko yóoni pour mu ñëw trace ñu xam ñu fu ñu nekk so that was ñu toog ba one o'clock dem the police yi ñëw with full force ñi nga xam ne like they are coming to arrest a criminal buñ ñëwee rek ñu break door bi ñu fugaa def lu kenn xamut ñu ne gaal si yëpp nañ génn am ñu weer four Gambians de ñi nga xam ne we were planning to come back home so noonu la ñuy jëlee yóbbu ñu si prison bi for two weeks I was there so mënuma understand and every day I would tell them I can't be here if I happen to be here for the next one week I will commit suicide and I mean it because I cannot be sleeping on the floor there is no food there is no water jël leen ñu delloo leen ñu suñ dëkka that's the only thing that you people could do they said no there are procedures before you people have to go every dañ ñoo chain génnee ñu si dëkk bi and people will be looking at us the slaves are here coming it's horrible so danga gis ne it wasn't an easy task. yeah it wasn't an easy task. yeah uh, léegi to cut the story short uh, boo leen ñëwee fii nii um, yan jéego ngeen jël. yeah buñ ñëwee fii we all know how the African society is. it was really really very difficult for us to. pour ngeen narrate story bi ñu bokkaat ci society bi because what they will be saying like ana ñu ñoo demoon ñëw nañ lan lañ indi dara and I think the thing that they could do was ah ñëw nañ de let's try to welcome them ñu try pour xam ñoom lan lañ dunda foofu noonu but they will be discriminating you they will be pointing fingers at you you will not dangaa dem bi nga xam ne you will not feel to come back in the society as well so it was really horrible so that was how we Um, she's the co-founder of the network of girls against human trafficking bu mu demee ba found ko den mu contact ñu then we happen to come out sharing our stories to put human trafficking to an end. ok uh, Badji um, da ngeen dee meet tamit pour waxtaan ak ñoom. Well, uh, we have never met any parents in particular, unless uh, this sensitization program, you need them at Activista, Activista at okay. Network of Gender-Based Violence, then okay. sling there, I committed dialogue to talk to the parents about it. Okay. Why don't I guess they yet still, people are still going. People are still going. People yeah. are stop. The only thing we can do is to keep talking and share our stories. It doesn't matter who believes or not, but the only Okay, thank you very much uh, for coming to up this morning. Mm -hmm. uh -huh. Thank you, Sarah. Um, we're really pleased to be here. Thank you for hosting us. Uh, I would like to say thank you very much for having us on the platform. We really appreciate it. ok uh, thank you very much euh, jërëjëf rek euh, fii la ñu daal di euh, tëj li nga xamante ne moo nekk lii di programme bi of this morning di leen jox dox daje ba ëllëg suba incha allah di gërëm ñi nga xamante ne ñoo nekk caméra crew bi ñoom Lamine ñoom Ñima di gërëm tamit ñoom Mariama ak ñoom Aliou benn tey di gërëm yi ñu nga xamante ne ñu doon seetaan rek ci Facebook live bi ak li nga xamante ne moo nekk digital platform bi di leen jox dox daje ba ëllëg incha allah jërë Pollo. Takeba. Abefa, abefa, abefa. Pambol. Vai, vai, vai, vai, vai, pambol.